Seydina dafay di dem waaw ni àdduna bi wari leen kata kita ñu li sant suñuy ñaari waajur di sant Cheikhul Khadim bi waral tey bés bi di sant sama sëriñ sëñ Fallou Mbacke ak si kii ma jébalu muy Baye Abdou Karim Mbacke borom ma kalimal axlaa man la Omzo Diop la ma gars yi gën a xamee borom Medina FM di nekk euh, muy page page internet bu nekk euh, Instagram. waaw suñu teewaay fii tuubaa lu ko waral da di ndam gis si sëñ Bamba te sëñ Bamba rek ñor ñuy ay murit bëgg doon taalibe. Serigne Touba dong ñor te sama yaakaar Serigne Fallou Mbacke moo ko woote woon moo tax man comme sama ci sëñ sëñ Fallou laa yaakaar lu mu woote man pour man kenn waruma cee njëkk. waaw te bi ma ñëwee Touba dal gàlle naar Touré sama xarit gis naa ci yokkute gis naa ci mbégte ak ren nu ni ni gars yi waxee woon màggal bi noonu lay demee ak Covid Covid 19 bi Covid 19 beeg lépp ak. nu mu demee ak état Sénégal bi li ñu daan wax lépp ñu màggal ko si jàmm ak salaam ak mbégte lépp démb la juuru màggal gi démb maa ngi woon si jumaa ji di ziar dama demee di ziare bi ma demee di ziare xewal tuuru fa muy taw xam ne nga xamante ni ren màggal bi rax na quoi màggal bu rax la mais yàlla na yàlla boole loolu yëpp tas ko ci réew mi muy xewal ci réew mi bi biñ nekk nii muy Sénégal ak àdduna bi yëpp. waaw man comme. tout les boy maintenant rek man damay xëy di ko di business ba pare man maa ngi si sama job FM Médina bi maa ngi ci ay projet teg teg teg naa cin quoi mu ngi bax di toog di xaar yàlla mu ñor ñu ngi ñu ñu ngi si suñu bopp daal ñu ngi suñu bopp bu baax a baax ñu ngi business yàlla ngi dimbali bu wér a ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di sant suñu ñaari waajur di sant Cheikhul Khadim ak maam Fallou Mbacke suñu yaakaar tegal la waaw Médina FM benn affaire benn affaire la benn affaire bu ñu doon foowee parce que man dama yàgg toog di foo ci ay micro di ay su ma micro nii mel ni kuy animé genre affaire yooyu moom ci dugaloon te man maay nit laa boo xamante ne xaw may stress confinement bi ñëw ma gis ni ko gars yi di dundee affaire bi metti loolu loolu loolu ma ne man. comme ça man yàlla may na ma man mën naa di sama téléphone di ci def ay émission gars yi mu muy wër àdduna ñëpp ñëpp rek ñu jot ci affaire bi xaaral ma commencé di ko def ma commencé di dóor émission émission première émission dama ko def ci ay foo nii dama toog nii di ko fooye te bi ma koy njëkk def mag ay boli boy boli boy moom moo doon teg baafalam rek muy teg son yi may may may tegu ci kaw son yi di anime gars yi di kontaan mais confinement bi dëgg laa ci gën a sentir sama bopp. parce que confinement bi dama ko daan def confinement bi Ousmane Youm waaw Ousmane Youm moo ma doon moo doon tegal son néegam fas fa daan toog may def ay émission mais fu ma defee émission bi tak première émission dama ko def tak affaire bi wër ma may jot façon message bu ne xëy suba yi xëy suba di dox ci fu ma dox ñu freiné ma naan ma li ngay def nii lii mën nga ci tedd mën nga ci am parce que man bi ma koy première fois bi ma koy def man ay foo ma xam ne sëgam lii mu ngi dindi stress su yi xaaral ma continuer ko confinement bi yëpp ma ma ibbi ci mooy page Instagram di fa def ay émission affaire bi di jàll normal waaw neexoon na trop mu doon benn instant boo xamante ne normal quoi cest à nañ suñu bopp da am na loo loo xamante ne am nga loo doon fooyee ba mu bi affaire bi doon dëgg looloo ñu dal ci affaire bi liñ doon fooyee ba affaire bi doon dëgg moo ñu ci dal. mais sant yàlla bu baax ñu ngi ci ay affaire ñu ngi ci ay affaire ñu ngi suñu bopp bu baax a baax yàlla baax na. waaw man dama daan toog mais gars yi yu ci bëri nag looloo leen doon rey ñëpp la moo leen su ma waree commencé émission bi nii rek ba nee nañ yessa yessaay bonsoir vous êtes dans votre radio Minna FM loolu la kenn mënul muñ loolu la gars yi di tasaaroo di sax moom mooy loolu. dem naa ba léegi sax damay dox si mbedd ñu wax ay yessaay yessaay yessaay mais sant yàlla daal sant yàlla. waaw man bi may dugg ci ay affaire animation moom dëgg yàlla yoon man animation mooy dafa dafa doon loo xam ne man ma yàgg ne parce que ñun maintenant lenn dafa doon suñ nekk suñu baaxu yow fajar dem kusum dawi ji entraînement man saa ma jógee kusum suñu salle laay toog di ndékki ma toogee ci bi di ndékki daan déglu ay DJ Bubsu ak ñeneen ak ñeneen damay toog déglu mu doon liggéey bu ma loolu mu doon benn bu noble parce que su ma jógee entraînement toog di get affaire bi di doon lu rafet a rafet mais abaa no stress. dafa di nit boo xamante ne man damay gis sama bopp ci moom mais du question da man dama bëgg mel ni moom mais damay li muy def man dama ci yëg sama bopp carrément parce que li muy dund man dama koy gis non stress boobu muy dund noonu man moom laa yàgg doon man moom la ma ñëpp xamee man xaw ma mer xaw ma découragé xaw ma man xaw ma yooyu. man sax la laa bëgg fu ma toog ñëpp kontaan ñëpp fooree ka fooree man loolu laa xam loolu laa gëm. waaw Medina Medina FM bi moom émission bi moom bi muy soog bi muy daw dëgg-dëgg Papa Laye borom office équipement kara moto sama grand yooyu noonu ñoom daan nañ ci def seen loxo daan nañ ci def seen xam-xam bu baax a baax maa ngi leen di sant di leen gërëm mais amoon naa autorisation pour mën a jot Bamba Fall le maire de la Médina affaire bi mujjul antu pour ñu jàpp ci def naa ay démarches aussi pour Cheikh Amath tiyaan Ba affaire bi mu jul àndu Médina FM moom gisuma kenn koo xamante ne fekk si na ma ci wax dëgg yàlla yonent bi gisuma ku ma ci fekk si mais ñu ngi sant yàlla bu baax a baax parce que ñun biñ koy def plaisir moo ñu ci dugaloon dugguñu si pour ut xaalis mais biñ demee ba xam ne lii war na mën a doon ful la def nañu li ñu mën pour déplacer wu ci nit yu baax pour ñu jàppale ñu mais boobu ba léegi gisuñu gisuñu dara bu dee wax dëgg rek neex yàlla gisuñu dara dara dara. mais ñu ngi sant yàlla bu baax a baax xam nga nit moom boo nekkee ci àdduna bu ñu la jàppale sa bopp ñu ngi jàppale suñu bopp bu baax a si ay affaire ñu ngi ñu ngi suñu bopp daal. projet Medina Medina FM moom jamono ah soxla nañ soxla jàppale loolu loolu loolu loolu loolu suñu bëgg-bëgg ak li ñu bëgg mooy lan Medina dem ba rajo comme rajo yi fi ne di cartonné Medina am rajo boo xamante ne biir Medina lay nekk ñuy def émission yi wàcc duggat Medina. mu doon lu loo xamante ni min sa parce que maintenant boo xoolee Sénégal maintenant kan moo ko fépp ban dëkk moo ko fépp doole lépp lu dëkk yi am maintenant war na ko am. mu déggaloo lépp lu France ay rajo France yooyu ñu am noonu seen biir ay rajo Paris Medina war na ko am loolu war na ko am maintenant. te loolu quoi loolu moo ñu tax a jóg buñ ci amoon kuñ ci jàppale ñu jël bu ñu amul tamit kuñ ci jàppale ñun deen def lu ñu mën ci suñu doole bopp ba taxawal ko incha allah. waaw gannaaw bi ñu santee yàlla junni si yonente bi ñu ngi jégaluwaat ñëpp bu dee wax nañ fi wax bu déplacé wu ñu ngi jégalu du suñu mënin yéene la woon rek du loo xamante ne sax émission ba ci interview bi sax du loo xamante ni dañ ko waaj dama fi gis ay booy Medina ñu dëkk Medina ma dëkk Medina muy mooy Medina TV ñu yor site internet may booy Medina te man biir te man laa la wax lu loo wax loolu Medina safuma mën naa laa juddoo fii laa yoroo fii laa màggi mën naa laa xam mu doon tamit ñoom ah affaire bi ñu gaa yi yombalal ma ko waa Médina TV ma leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di leen ñaanal yàlla seen site internet bi yàlla na dem ba doon télé dëgg dëgg dëgg gaa yëpp jàpp ci. te te may woo ñëpp képp koo xamante ni Médina moo la saf nga ñëw jàppale ñii jeune Médina yi parce ñu ngi def ay affaire yu waar soxla nañ jàppale dañu dañ leen war a ñëw teg loxo. parce que mënoo fi toog nga ne man booy Médina laa Médina laa juddoo Médina laa yaroo ba pare ay booy Médina di sonn ci Médina nga yor say milliards toog fi nga toog dafa des quoi ñun am nañu yéene mais doole bee ci des mais am nañu yéene am nañu yéene bi de barke yonante bi am nañu yéene bi te ay Médina ay booy yu bëgg a liggéey ñoo fi ne ay booy yu gëm seen bopp ñooy yeewoo biir Médina bëgg liggéey mais ba tamit bëgg a bëgg a bëgg day jàppale te fii ak te fii ñër fas ñoo amul mbaam barki yonent bi booy Médina bu ñu leen tegoon loxo tuuti ñu gis lu garaaw ndax booy nangu nañ ba pare seen xel nangu na xel yi nangu na doole bee ngi fi lépp ngi fi waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw jaajëfa tee Médina TV